pour dëggal rek li doyen wax. Mhm. en même temps xëy na pour euh, répondre sëñ Birama peut-être euh, laaj bu am solo la posé en fait. dafa mhm. doon laaj boo xamante ne day nekk ci penc mi. Mhm. donc communication en fait euh, du mouridisme nekkul communication de propagande sédu séductrice en fait. mais communi kii la façon de communication d'acceptation de l'autre en foofu la gën a viser parce que boo xoolee en fait murid nekk dans la diaspora. ñoom ils réussi nekk ci ay société yoo xamante ne ñoo gën a réticent en fait ñoo gën a sceptique ci mm. wàllum diine surtout nga xamante ne ay terrorisme yooyu da leen di hanter l'esprit mm. xam ne ñoom dem nañu ba accepter tey jii nii mouridisme di leen jox ay autorisation ñu mm-hmm. tabax ay kër Sëñ Touba mm-hmm. ba ci États-Unis récemment le Bamba Day mm-hmm. donc c'est une communication d'acceptation vis-à-vis ñu accepter leen vis-à-vis d'une mm. société bi ñu mm-hmm. nekk mm-hmm. plutôt une communication de de propagande mm-hmm. sama xalaat bu gàtt ñu gis leen comme des hommes yoo xam ne jàmm la ñu indi dañu dañu dañoo nekk ci seen yoon li doyee naan dañu nekk ci seen yoon ñu ngi jàng seen i xasida toog ñu toog nekk ci seen yoon tooñu c'est pas des agresseurs noonu la ko doyee woon